xel dafa na yar sama rakk ji Balla Gaye 2 sama xel dafa na yar ci moom ba ma ko yëgee waaw sama yeneen bu dee nagam ndax barki dee moo njaar leen fi taxaw di ko di ko naan dafa feebar dafa feebar ñëpp di ko bind ñëpp di ko bind naan dafa feebar tey ñu xëy tiis wi dal suñu kaw waaw kon nag sant yàlla rek sant yàlla rek te gars yi nañ bàyyi wax wax baaxul di njëkkante di bëgg ay information di def ay fausse information baaxul bala ngaa bind wala bala ngaa wax na leeral gëstul gëstul yéen laay waxal yéen ñii journaliste bala ngeen a wax wala ba ngir bind dee leen gëstu dee leen gëstu. mais est-ce ko gën gisee moo tax gars yi dafa lëlu ñu nekk ci ko mu nekk fa wala ku ne ne woo bu ko ñëw jël wala télé bu ne non non non. dafa nekk ci ñor bu intéressé lan ngay Balla lu muy taxaw di lambar lambari fu ne mu ngeen pour ngeen koy gis rek pour lan pourquoi. pourquoi ça combat bi dañ ñu ñor combat bi daf ñu la waaye def na ma xamoon ko dama nekk ci dëj waay bu leen ma tàng loo waay bugguma tàng tey damay wàccee sama kii bugguma tàng dama dama am naqar dégg nga voilà ok par combat Balla Gaye ak ni mu jege woon papam tey du balees ak lamb jooju mbaa du bëree du maanaam du bëree pression boobu. ban pression Balla Gaye mag la léegi ca matière Balla Gaye ca matière. Balla Gaye kilifa la euh, ñaata yoon la mujjee bëri ni ta gisul paa bi paa bi ñëwul hmm? paa bi kay nan ko ñaanal rek nan ko ñaanal nan ko ñaanal rek yàlla xaare ko ajana wax dëgg yàlla. lamba ngi commencé wéet nag. Ah, waaw lamba ngi commencé moo tax ñi ci suuf ñi ci suuf dañoo war a xool sunu papa yi ak ñu démb ya xam ne àdduna amul solo fii loo fi dafay jeex na rafet na rafet dañ yéenante jàmm. làmb làmb la dañuy bëre dañuy liggéey dañuy mayante xaalis su jeexee jeex na ñu bokk ndey ak baay. wane nga ko fan yi passé Khadim Ndiaye ba dal daane si doom dem nga fa def acte bu rafet yóbbu fa li nga xam dund ak ak yeneen. loolu mooy àdduna lo sport su jeexee ji Xaadim Njaay suma mag la suma grand frère la Xaadim Njaay lu nekk naa ko fi lu wax na ma ko ba tas fi sama kër yëngaloon na sama kër comprendre nga loolu su amee lii daanu gis nga doom miir boobu daanu si ko doom yi kooku mu daanu dafa ma doon woo téléphone léeg-léeg naan ma ay liiru bàyyi sama papa sonal nga sama papa de wóor na yàlla billahi wallahi taala bi ma ko yegee après Xaadim Njaay ne ma kooku la moo tax ma def dérangement dem seeti ko yóbbu samay tranga te c'est loolu laa war def loolu laa war a def ndax damay won ni tey ñun dañoo war a xool ci ñun dañoo war a xool ci ñun ndax xam ne su jeexee jeex na xool suñu papa yi yaa ngi dégg asagulwaal ñoom ñëpp dañu nekk benn bokku ndey ak baay ah tey jii ñu seen mag dañoo bokk ñun ñëpp dañoo war a bokk ndey ak baay suñu rakk yi xool ci ñun moo waral ma def acte boobu te pare gu ma de sama papa ngi nii euh, père euh, kii Mohamed Ali dafa feebar waaw waaw tey jii laa fa waroon a dem far yàlla dogal lii mu dogal waaye maa ngi waaj dem seeti ko incha allah rabbi voilà ndax àdduna amul solo philosophie yi ñu doon suñuy papa lañ suñuy kilifa lañu waaw ñoo ngi koy ñaanal yàlla yëkkati ko ak jàmm voilà. ministre des sports Matar Ba pour mu gëstuwaat en sa gloire parce que en sa gloire yi tëdd bari nañ fi ah, ah, bi balaa leen a gis président président mooy dooleel ministre bi ministre bi ñëw xool jàppale ancien gloire ndax mooy yoon ancien gloire du ñëpp man du ñëpp man am na ñoo xam mënuñu tey jii Balla Gaye euh, Double Less euh, ñaata weer la tëdd feebar te kenn xamu ko. li ci war Balla Gaye mi ngi koy def ak fereeram te mooy doomam ah ñëpp est-ce que mën nan loolu ñëpp est-ce que am nan loolu ah moo tax ni euh, président na jàppale ministre bi Matar Ba mu gestu ancien gulwaar yi ndax loolu mooy adduna ndax ancien gulwaar yi ñu si bëri teewal nan Sénégal fu ne raaye bu ne indi nañ ko Sénégal raaye bu ne indi nañ ko Sénégal ok loolu rek laa amoon ci lu may wax voilà président na jàppale ministre bi ministre bi ñëw jàppale ancien gourwaane loolu mooy àdduna gërëm naa leen sant naa leen jërë ngeen jëf waaw te tamit li ma lay wax rek ci ak kii rek euh, ci loolu information fausse information bàyyi leen koy gaaw a joxe xaw kan la xaw ma ban si la waaye billaahi wallaahi mare naa ko trop ci waaye yow weesu na kooku mooy bàyyu saytaane nga ama saytaane la ba